asalaamaaleykum sax internet yu l' évidence TV ñu ngi leen ziar leen bu baax. Euh, j'espère que ne xam naa ne yéen a ngi doon xaar seen émission bii di Au Zénith te xam naa ne tamit aussi yàkkamti woon ngeen jàkkaarloo waat ak ñun te nag ñu ñëwalaatal leen tey ci suñu émission bi rek comme ni ñu ko daan defee rek chaque jour ma sama naataango yu jekk yi macha allah tey xaw ma sax nag tey fan laay njëkkee bu ñuul bi wala bu xees bi. ah ah kon Sandra nooy nañ la jox nañ la kàddu gi. salaamaaleykum samay guys nawoon naa leen. ñoo la raw lu bari sax bi mm. au au Zénith bi ci l'Évidence TV maa ngi leen di nuyu di leen bëggee. di leen ne ngeen suivre émission bi comme d'habitude. Mm. li nga def daal tey. ak xeeb. def noir et blanc. ak xeeb ci toq rouge. kon baax na neex na Penda nuyu nañ la. waaw fay naa la euh, Néné may fay aussi euh, Sandra namoon nañ la trop macha allah vendredi ah, suñu la voilà donc namoon nañ la gis ah <laughs> gis nga. <laughs> su manqué rek ambiance su moom mooy loolu. xam nga non ah, jooy jooy jooy su manqué rek mooy loolu ndax plateau bi moom moom. dafa daf koy neexal balaa ñuy tàmbali dañuy réew ba ba sonn après ñu tàmbali mooy loolu mu daaneel ñu. voilà euh, salaamaaleykum euh, suñ mbokk internautes yi gannaaw bañ ñu leen nuyoo ziar leen ba pare macha allah. Mhm. di leen jaajëfal aussi tamit euh, di wax ni que rek ba léegi rek yéen a ngi Evidence TV mhm. ngeen yokk rek di abone mhm. waaye tamit di bës cloche bi macha allah ngeen di am émission yi. ku ci nekk xam na ne Au nit moom dañ koy am fii ci Evidence TV ni ngeen koy amee ni ngeen koy faral di amee ànd ci ak ñetti ñi macha allah muy sama xarit yi nga xamante ni macha allah tubaar dañuy indi information émission yu pop ñëw tegal la ko ci table bi mm-hmm. donc léegi léegi ñu tàmbali suñu émission aux jeunes te ànd ak ànd ko ak yéen euh, merci beaucoup Néné kontaan ci yow hmm. déggoo ngeen nga ni ma mbaadu mm-hmm. noir balaa waaye laal naa tuuti balaa ci biir. pourtant dañoo xëcc gis nga de man de dama ubbi sama kamoon rek dama ubbi kii bi rek mu wadd rek mën a ah, xaaral ko bii la. Hmm. noonu la damaa tijji mu wadd rek. waaye man tam de leen may wax des fois li ngeen di def nag. ah, ah. Hmm. ah suba foo ñu waxante ko sax. doy na waa de noir bi nii. Hmm. man damaa ubbi rek mu wadd rek mën a xaar ma xëppoo ko. yàlla baan kon man tam dinaay def bu mu ubbee rek mu wadd ma solu dem. <laughs> <laughs> di ngeen jaajëfal gis ngeen euh, sama gars yi moom mooy lool saa yoo toogee rek foog ñu wax loola reetaan loola <laughs> merci beaucoup ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ñu ngi si am contentement bu baax a baax tey nag euh, ñu ngi war a war a ñëw waxtaanee euh, ci mbay peex mm-hmm. buñ ne mbay peex nit ñi ñu bëri xam nañ ko fi macha allah mm-hmm. mais tey mu ngi indi benn sujet boo xamante ne nii xaw na sensible xawul sensible sans dépend rek ak nit ñi ñu koy déggee aussi. Mhm. parce que euh, mu ngi naan moom du may doomam géer. dëgg la te ñàkk bañ a may doomam géer bi tamit aussi am nañu mu jaaxal. am na ñu mu jaaxalul te man aussi tamit jaaxal na ma trop bëggoon naa tam nga leeralal ma lu waral loolu. <laughs> ay man Ndendé. ah barki yàlla man daa sama présentatrice bi jaaxal na ma. waaye nag ba tey dinañ ci wax loo xamante ni nii xëy na peut-être loolu la ñu xam. Mhm. muy li nga xamante ni moom la mbay Pekh wax démb ci émission bi nga xam ne mooy émission Tunkara. Mhm. Ousmane Tunkara ku nekk seetaan na ko. Mhm. donc mu wax ci loo xamante ne dañ naan sax nag dafa am solo. parce que moom Mbaye Pekh géwél la. donc comme yow géwél nga am droit wax ni que man sama doom duma ko may guerre. dëgg la man ci sama gis-gis. te yaakaar naa ne tamit euh, moom. Mhm. ak euh, origine am. Mhm. daf koy garder. dafay gën a yokk li nga xamante ne ni moom la nekk muy mhm. géwél gi nga xam ne moom la doon bu sañoon tey xeetam da koy gën a yokku parce que tey jii bëgg na moom mii su demee ba màggat ñàkk nar a doon noo ah, nekk ay sëtam mais mais mais est-ce que tamit est-ce uh-huh. euh, moom war na mën a wax ne man duma may sama doom géer parce que xale yi léegi mën nañ làkkatu dem def leneen. Mhm. xale itam mën nañ làkkatu ka ñu bëgg. Mhm. saa yoo loon ko teree rek di nga ci gis leneen njaaloo ak leneen ak leneen ak leneen loo xamante ne dee leen si fekk. est-ce que mhm. tamit loolu noonu parents yi tamit joué wuñ ci. nee ne fi waxee mooy que ni euh, li mbay peex wax di entre guerre ak géwél ak géwél waaw donc moom li ma wax sànq la rek foofu la ñuy ñëwaat mm-hmm. xam naa dinañ ci gën a xuus nag ci xale yi ndax yaakaar naa ni ne eh, xale ngi nii toog te gën naa ni ko moom dina gën a mën a yaatal ci li nga xamante ni ci la ñuy wax mm-hmm. mais euh, moom mbay peex mm-hmm. am na plein droit wax loolu parce que tey ji man bu doon man la tamit am naa plaidora ma taxaw ma ne man sama doom duma ko may géwél ah. waa parce que am na fu ma koy teg waa comme yow am nga fi nga ko teg comme yow am nga fi nga ko teg yow da ngay xool da ngay défendre fi nga ko teg bu fekkee ne nag yàlla dafa dogal sëy boobu dafa war a am yow loo mënti défendre défendre dafay am mais nag mën nga défendre sa bopp défendre li nga doon ba yow bu ëllëgee nga mën gis ñi nga xamante ne ñooy say sët ñooy say sëtaat ñu ne ah man de samay sët ci li ma doon la ñu tënku mhm. donc Mbaye Pekh bëgg na tey jii benn sëtam bu taxaw daal ne man la Mbaye Pekh junior ah loolu dafa dafa neex te tey jii yow bu fekkente ne yow géer nga mhm. est-ce que mën nga am loolu waaw mais tam euh, est-ce que mën nga am loolu c'est vrai mais euh, parce que tamit souvent dañuy gis euh, géwél ak géer bu ñu sëyee parce que des fois géer moom mooy may géwél walla des fois géer dem di ñaan géwél est-ce que tamit xeebante du dugg foofu géer ñaan géwél wala géwél ñaan géer ñaar dañuy ñaanante des fois mm. mhm. waaw waaye tam li ñu gën a taamu ak li ñu ci gën a gis ci suñu réew mooy géwél dem tagg géer géwél dem ñaan géer dëgg la tey ji yow miy géer nga ñëw sëy si kër géwél dina am benn tuuti waay boo xamante ni da ko fa tuuti mhm. parce que tey yow il faut que di nga dem nga ñëw nga nga fekk si leen ñoom ci liñ doon mhm. te genre doo leen sama avis laa bëgg joxe. Mhm, mhm, ñëwal affaire de Castries yi man amul amul importance biir Sénégal. Mhm. parce que jamono boobu c'est révolu en fait. parce que xale yi léegi comme ni nga ko waxee da ngay wër di kii di bëggante amaal kenn du xam ne ni yow yaa ngi bëggante nga ñëw genre. au jour le jour nga bëgg a xamante ak parents parce que tey parce que yéen tey seen génération da ngay gis koo xamante ne nii day ñëw. ne yaay man de kii laa bëgg wala papa kii laa bëgg mu ne la duñ la ko may parce que géwél la. wala ñeeñu la. fa laa doon fa laa doon ñëw si. mais yéen da ngeen di làqatu dem def si suuf leneen est-ce que. du question de dañuy <laughs> dañuy làkkatu sax uh-huh. parce que gis nga relation mooy loo xamante ne mënoo mënoo tëb tëb rek dem wax ko sa sa parents yi ci uh-huh. fi ñu toll nii uh-huh. parce que genre cër cër la quoi da ngay da ngay bëgg genre respect da ngay foog ne ni respect amatu fa soo demee taxaw wax sa alors que fa fa la respect di tàmbali wee quoi mais doo ko jàppee noonu loolu mooy indi nëbatu bi ak dem nekk di def nag si du noonu di dund mbëggeel ci pet kii quoi xam nga <laughs> dafay neex sax <laughs> vois dégg nga li may dégg nga li may wax. muy loolu. Mm-hmm. tu vois donc euh, affaire de caste suñ ko indiwee. Mm-hmm. Euh, je me dis que parce que. Euh, parents parents yi ñoom yëguñu li xew. Mm-hmm. ba genre kooku su ñëwee nga war a toog jusqu'au moom moment te ñoom planifié nañ parce que suñ demee ba dund loo xamante ne dafa gudd ay trois ans. tu nga ñoom ñu planifier nga yàqal leen seen rêve. ndax mais Sandra est-ce que nekkul tamit yéen yéen a të seen tawu bopp ba yéen seen waajur yi lu mu wax yéen du ngeen ko def. mën ngay def sax. <laughs> parce que souvent ah. tey lu ci ëpp bu ñu leen waxee bu leen dugg ci géwél bi dem dugg ci géwél bi dem sëy ak géwél bi xam ngeen ne géwél bi da leen di xeet dëgg la la plupart. dëgg la xaw ma ndax ci yéen yéen yéen a ngi koy bàyyi xel ou pas du kii warul sëy ak kii de. parce que mhm. si c'est pour euh, race bi des ci biir kii parce que mhm. kii su ñëwee dem. Mhm. di sëy ak ak beneen xeet. xam nga sa xeet bi day day day wàññeeku. des mhm. gens si tu te bats pour que sa xeet des loolu d'accord naa si mais lu fait de priver des gens de leur amour genre pour bañ a maye ndax. yow yow daal yow daal ca amour ba daal nga toog. ndax yow ca bëggante ba daal nga jàpp. waa dëgg la dëgg la voilà ah, ca bëggante ba nga jàpp gone. bëggante kase gisoo ak fan. yow bete bete en est la preuve parfaite de affaire de waasu sumulu lan lañ ko def sumulu da doo fa taxaw ñu ne ko ma xuj ko may réewam. darul woon dee foofu kon affaire de daret kii sama daret la sama diir c'est révolu daret bu dara ti tamit ngéwél bi su deewee maa ngi ne ngéwél sax géwél bi su deewee <laughs> ci suuf dañ koy suuf moom mii ah kii su deewee ci suuf dañ koy suuf <laughs> donc je me dis que affaire de waaso mm-hmm. c'est révolu ay affaire de xeet yi ngir mm-hmm. yàlla rek nañ bàyyi xale yi ñu dundul seen rëndaw waaw ah, mais mais tamit mbay peex mm-hmm. euh, moom est-ce que tamit mu ngi bàyyi xel Mm-hmm. ay njabootam wala aussi tamit euh, li muy wax nii. Mm-hmm. est-ce que mu ngi bàyyi xel di rendre compte bu baax ne ëllëg dina ñëw. Mm-hmm. mu bàyyi xel njabootam parce que keneen mën na ñëw bëgg ko aussi. mu war euh, par exemple mu war a maye doomam. koo xamante ne ni kilifa la mu war a maye doomam te mayewul doomam est-ce que loolu tamit. Euh, du indi dara tam si affaire daguma la de mais moom xam nga dafa ne parfaitement genre. du ma may sama doom bu jigéen lu tax waxul du ma may sama. voilà du ma may sama doom bu jigéen doom bu nii géer wala géwal. tu vois euh, affaire bi c'est pas équitable quoi. waaw Sandra tamit Sandra fi mu taxaw fi mu taxaw mu ne duma may sama doom bu jigéen. Uh-huh, géer uh-huh. foofu lay taxawee ne sama doom bu góor tamit bu gisee. géer du ko takk du ko takk. Euh, parce que moom man li ma wax sànq rek ci loolu laay ñëwaat moom am na lu mu bëgg ci xeetam. moom am na lu mu bëgg ci xeetam xam naa ni mbay peex kenn gënu kaa xam lu yàlla wax ak lu yeneen di wax kenn gënu kaa xam lan mooy géer ak lan mooy ah, géwél macha allah ndax yàgg naa géewal géew bu ne mhm. géew bu ne rek mbay peex géew na ko làng na fi géew bu ne mhm. macha allah donc bu amee bu taxawee mu ne man mii du ma may sama doom géer am na fi mu ko teg te man fi mu ko teg foofu dama koy défendre mhm. li tax dama koy défendre moo di moom géer la moom géwél la mhm. te géwél bi mu doon bëgg na ay njabootam ëllëg ñu yokk xeetu ngéwél googu noonu ba géwél googu gën fee sax waaw géwél gi mu doon mhm. bëgg na tey jii sëtam wala sëtaatam mhm. ñu taxaw ñu ne sama maam de mbay peex moom moo defoon lii def laa tey jii bu fekkente ne da nga may sa doom bii tey jii géer géer googu noonu géer lay doon géer géer rek lay doon tey sew doom boobu noonu nga bëggoon mu nekk dara nga bëggoon mu taxaw comme moom ñoom ni ñu nekkee rek mm-hmm. des communicateur traditionnels nga bëgg tey ji sa sët taxaw nekk comme noonu noonu téye micro taxaw di tagg géeram te yow géer boobu nga takk doo du la jural doom bu mel noonu parce que géer la rus naa taxaw di yore micro wala taxaw ci géew naan da koy géewal waa mais est-ce que tamit est-ce que tamit que tamit moom doomam bu góor bu bëggee takk géer est-ce que moom tamit ñooñu dinañ ko may jabar. waaw ndax am na fa. parce que loolu tamit war nañ ci a wax tu prends la race de quelqu'un nga koy xeeb. waaw du xeebel du ah, xeebel. non genre non non non non ah, du xeebel. loolu du ma mais du déglu ma vu point de vue que ni nga ko expliqué wee genre dafa bëgg race loolu mun naa ko concevoir. Mm-hmm. mais le fait que genre non ko may parce que lii ak lii. Mm-hmm. loolu mm-hmm. xeeb la da ngay. non non du xeeb du xeeb non non du xeeb. loolu du xeeb. du xeeb parce que ku nekk xam na ni guerre da bëri na kersa guerre mënu taxaw di wax yenn yi góor mënu nekk ci neen yi waaw góor mu géew mënu taxaw ne may ma ah parce que géer la mais tey jii géwél mën na ñëw taggal la say maam. waaw mais ku fa mu tàmbalee ba fa mu yem. géer géwél rek a ko man waaw mais am na ñëw taggal la say maam fa mu tàmbalee ba fa muy yem. mais man moom gisee wu ma ko xeebeel. mais am na géer yoo xam ne jamono ji ñoom ñoo raw géwél. Ah. géer yu yàqu yee raw géwél déggoo ma de. laay la xëy na li ngay xamee ne nag affaire bi dafa revenu <laughs> ndax. mais moom am na ci ah. plein droit moom moom am na ci plein droit. mais am moom moo a jur. moom am na ci plein droit mais est-ce que laa la wax. parce que mm-hmm. posé naa la question bi sànq. Mm-hmm. nee naa la est-ce que moom doomam. bu mm-hmm. demee di ñaani ji géer. ce que dinañ ko ko may. déedéet dañuy naan déedéet sa papa moo. mais loolu ci ñoom la rek wuy ma wuy ma loolu ca. ak ak loolu ak ña koy may loolu nag ak a koy may ak ña koy may. nu mu ko loolu ak ña koy may xam nga tey jii non non non non attendez attendez xam nga tey jii mhm. mën nga dem nu mu tuddati yow sa doom bu góor mën na dem bëgg géer mu dem foofu noonu géer yi gën laa bëgg mm. xam nga loolu c'est logique ñooñu noonu taxawal rek. ñooñu noonu gën laa bëgg. c'est très logique gën laa bëgg. na tax attends mhm. mais yow mii yow euh, am nga plein droit nga taxaw nga defaan sa bopp si li nga ne tey jii bu fekkee ne da nga dem ci géer bi géer bi mu ne man xooluma li nga xamante ne dañ naan kii géer la wala kii géwél la man tey mën naa jël sama doom mu may ko géer parce que kooku xolam may na ko loolu te moom it attan na jël doomam mu may ko géwél mais moom nee na moom mayewul moom mu attanu ko. mënu ko waaw léegi déglu ma xam nga loolu ah c'était avant loolu li nga wax nii yëpp mënoon na am su fekkee toogul woon si télé wax ne carrément sama doom bu jigéen lu ma ko may diw. dafa dafa am fullaam ak faydaam ah, taxaw wax. loolu dëgg la dafa am fullaam ak daam dëgg la te te moom moom làmminam mais léegi dafay nit ah, balaa ngaa wax dara ngay sóoraale ëllëg. mun na taxaw ñoo xamante ne dañuy naan ñëpp amuñu même point de vue. man la waaw. te kii lii la ko waxee kii bi muy génnee wax bi waxu ko pour blesser nit yi mais da ko wax pour lii. Mhm. nga sénégalais yi taluñu réfléchir noonu. duñu réfléchir donc mhm. mun na mun na mun na vexer benn benn bi euh, bi jàpp ko comme si que genre man damay dama xeeb sa sama mu dugg ci sax man baatu xeebeel parce que xeebeel bi ci am. mais attends attends ci. yaramam moo tàngoon rek. mu toog rek. mu ne eh, eh, xaaral du du ah, yaram bu tàng waxtaan la mooy dem si si digg géew. non mais peut-être waxtaan bi peut-être waxtaan bi. mu tàng si xam nga. mu ne xaaral naa si loolu rek wax ko tamit wala. il n'est pas il n'est pas le mieux placé pour mm-hmm. que géwél moom mooy dem di songo gars yi dem toog si ay géew. ci biir tey jii dina am géer dina am géwél. waaw moom tey jii xam na fa muy waxee parce que géwél géer yooyu noonu. xam nga moom li tax ma ne la xeebul géer yi tey jii moom mooy ñëw tax taxaw ci géer ñi tey tagg la yow Sandra ba nga ne muut wut nga génne la nga am lépp daal di teg ci loxo may ko kon donc xeebul géer xeebul géer de mais moom dafa gis gis gisam dafa am gis gisam mu taxaw wax ko mais xeebul géer waaw gis gisu nit waaw ñi ci des tamit gis gis ñoom tamit ñu téye mais moom am na gis gisam euh, ñëw na taxaw wax ko donc xeebul géer penda xam nga xeebul géer mais terewul day taxaw ci géewu géer géewal géer pourtant attends attends Sandra waaw pourtant géer yee ko may géer yee ko jox ba fi mu toll nii mu toll nii bu toll macha allah waaw waa léegi yow naka euh, ak la fa ay maamam bàyyi voilà mais est ce que tamit war na mën a xeewee noonu génne ba ne man sama doom waruma ko may ma ne leen baatu xeeb laa bëgg ñu teggi ko fi ndax baatu xeeb du ci am hmm. moom xeebut bu xeeboon du xëyaat tey jii suba gàddu microom gii hmm. wala mu gàddu baatam ñu jël ñu ñëw jiital ko ne ni géew yaay géwél gi yaa ñuy géewal taxawal waxal jëm te géer yooyu ñoo koy mayaat encore amaala tamit ñàkk choix la parce que géwél la il n'a yooyu ñoo koy mayaat encore qu'il doit faire moo tax mu koy def. du xeebeel de xeebul benn géer. waaye am na plein droit taxaw ne sama doom mayu ma ko géer. man sama moo benn benn lay nekk waaw ndaxte xam nga ni moo si hmm? kër géwél ak neex ga mu neex yenn saa yi ñu daal di teg xaw ma tukkusu gi yenn saa yi ñu teg tama daal di xaw a yëngal nga gis ku fëlee fële na la ñëw tëb daal di baara mbay ba mu neex gis ku génnee nee baara mbay nga ñëw <laughs> toog yow miy géer nga toog sa biir neex xamoo nooy tëbee xamoo nooy euh, kii ah yow tamit nag nañu waxante dëgg na na muy neex yow mi yàgg ngaa dem ci kër géwél yi nag yow mi yàgg ay ay waa wàllum waaso du ma si sori parce que man man ah. ma xoolee xam nga ni sama ku la gis waaw sa air du airu fii sama dund du fii voilà ay man man ma si sori barki yàlla man man man mën nañoo avancer ci leneen ndax man ki ñu booleeg Sandra Plateau moo ma tooñ <laughs> a jëm nii waaw moo ma tooñ parce que ñu ngi ñu ngi ñu ngi gis tey <laughs> euh, Mia Guissé demoon fii ci euh, Europe. Casino. Casino. Mhm, France mu defoon fa programme am bi. Mhm. te macha allah. waaw réussir. waa réussir na aussi. mais euh, war nañ mën a waxtaanee aussi tamit ci mhm. euh, visa yi. parce que am na influenceurs yu bëri yu demoon. ak Euh, fecckatam yi ak mm. ñeneen ñeneen ñoo xamante ne day ànd ak euh, ñoom mm, mm, mu euh, ñu gis ni tey xaaj bi yëpp ñu ñu demoon déposer leen mm-hmm. seen visa génnul mayuñu leen mm-hmm. loolu tamit aussi c'est c'est c'est quoi le problème ah comme dañ ko rejeté mm-hmm. waa ambassade France la ñoom ñoo rejeté li nga xamante ne ñoom ñooy seeni seeni visa donc loolu yaakaar naa ne ambassade Sénégal ñoom tam war nañ ci mën a wax ba tey ji seeni doomi réew suñ jugee fenn bëgg dara ñoom ñu ñëw ñu taxawu leen ci loolu dëgg la nag waa Sénégal appuyé nañ ko trop parce que ñu dem bëri na gis nañ fa ku ci mel ni Waly Seck jaamaan ñoom ñëpp ñu ngi fa woon ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc ñu dem bëri na mais moom orchestre am demul ñi nga xam ne ñooy ay feet ci katam demul gis nga dafa taxaw en plein public mu ne deux jours laa répété ak ñii muy xaw ma waa Côte d'Ivoire xaw ma mun a deux jours laa répété ak ñoom ñoo ñëw def fecc bi ñoo ñëw tamit nekk orchestre bi euh, àndandoo ak moom ci li nga xamante ne nii moom la waroonaa tëgg foofu mais nag alhamdulilah macha allah casino fees na dem na ba nekk rek sax nag guichet fermé vraiment donc loolu tamit dafa nekk benn benn benn acte boo xamante ne nii c'est à saluer rafet la waaw macha allah ñëpp taxawu nañ ko. Mm. ndax xam naa ne Sandra du ñàkk am na ci lu mu ci a lu bari xale la xam naa dafa mel ni. parce que Sandra ngi ñu ngi ñu gis euh, xale yi da gis ku jug rek mu ne man influenceur laa. bu jug rek nga ne man <laughs> influenceur laa. léegi euh, ñu ngi gis Mia Guissé def programme am ñu si bëri ñu ne xaaral dañuy profito. dugalaale ndax ñun suñu visa génn ñu mën a dem est-ce que loolu logique na. ah logique na logiqueul comme kii nu mu ko waxee pen penn mm-hmm. euh, visa du du du ñun suñu ambassade ñoo koy joxee mm-hmm. ambassade bu France la mm-hmm. suñu refusé yooyu visa bi y a sûrement une raison mais suñu refusé ce visa ba pare duñ la jox raison lu tax ñu refusé ko te je me dis que caaxaan caaxaan bi tamit joxe visa ci ay caaxaan même si su fekkee da ngay dem di appuyer suñu artiste mhm. mais sénégalais wu bi bëri nañ mhm. ñooñu mun gis nga kon konoon du def guichet fermé kon ça veut dire que suñu demee ba refuser visa am na ñoo xamante ne leur présence genre jaru ko woon foofu. Mhm. mais que genre <laughs> show bi. voilà parce wax parce que ñun lañu dañoo dem déposer mais mayuñu ci kenn. waaw mhm. parce que ce sont pas des loolu moo nekk problème bi. ce sont mhm. pas des influenceurs mais dafa am ñeneen ñoo xamante ne nii dañoo kii woon ci ginnaaw bëgg ci visa yi loolu moo tax. waaw peut-être su fekkente dafa am loo xamante ne moom moo ci louche wala am na loo xam ne moo ci laxasu donc ñoom nañu chercher loolu nañu chercher loolu bu ko defee nit ñi dinañ mën a xam ñun tamit boo toogee am plateau di nga mën a xam voilà bu fekkee dafa am leneen lu nekk si nañ ci ñoom mën nañ ci waxtaan ah, voilà euh, aussi tamit euh, mhm. ñu ngi gis jaamaan euh, ak Mia Guissé ah, waaw luñu luñu lu ñu def ci kaw seen bi rafet na mais ñu ngi si gis ay kàddu yu xaw a teggi ne mais est-ce que est-ce que woyu léegi yàquwul parce que bu njëkk woyu woy bu njëkk dañ daan yeete xale yi yee xale yee yee mag ñi aussi mais dañoo gis ni léegi woyu léegi ay ay saaga la ay waxante yu ñaaw ay sànnante traque pour pour pour lan loolu en mm-hmm. bi gulu gulu génnee. Uh-huh. Ah, la ñëpp waroon xam ne ni wéy changé na. wax na dëgg gulu gulu gulu génnee la wéy. gulu gulu ak zembare. donc yenn yi dañ ko koy nangul. seen ah, ak zembare moo tax man jaga kii ah, gajaga dama kontaan ci moom parce que moom dafa ñëw indi désembre. de désembre waaw man dama bëgg ci moom mais gars yi <laughs> loolu du ñàkk showbiz bi la da koy laajte parfois te xale yi sax. gisoo les enfants tu les tires vers un contenu boo xamante ne ñoo ko euh, bëgg euh, mais nag Sandra mhm. dëgg la xale yi ñoo ko bëgg mais des fois yow di nga toog ak sa doom mu woy naan maa xaw ma lan lan ak lan ak lan mënuma si jaar mais est-ce que tamit jaadu na ngay woy di saaga yow sa kanamu yaay non loolu jaadu mais nee ne nee ne ah. mhm. woy su diglewul mhm. yeetewut doonatul woy foofu laay daal maa ngi ci ki nga xamante ni tubaar fa kaala macha allah yàlla na suuf sedd ci kawam. amiin amiin amiin yàlla suñu borom xay ak ca àjjanay firdawsi mook mook fa jiitoog ña fa nekk ñëpp. muy suñu papa coon nga xam ne nee naa la man du ma taay di ko wax. dëgg la chaque jour nga wax ko fi. ki nga xamante ne macha allah moom moo ñu jural rek suñu chanteur bi nga xamante ne moom moo ñuy bégal. macha allah nee naa man du ma taay di ko wax. Uh, uh. ndax papa coon lépp lu mu way dafa digle. Mm-hmm. lépp lu mu way rek da nga koy déglu di kontaan. Mm-hmm. te boo jëlee woy woowu jëfandikoo ko bu boobaa yow da nga ciy gis li nga xamante ne moom mooy résultat mais nag ba tey jii jaamaan ak yaa gise ay xale lañu. waaw mais ay xale lañu mais tamit. dañu loo xamante ne nii day yeete. mais tey jii yow ñun ñu ngi wax loo xamante ne nii euh, parfois yow da ngay dégg wax nga ne kii saaga na te boo déggaatee wax ji ndekete du saaga. ah mais yow est-ce que mais attends attends tey jii su ñu nee la tey jii su ma nee la yow ndey sa ndey sa ndey sa ndey la olof ndey la wax. sa ndey waa sa ndey sa ndey la affaire bi dafa sew dama ko mënul wax fii rek mais dafa waa ap loolu moom duñ ko duñ ko wax sax te duñ ci duñ ci yaatal mais ndey moom bëgg naa ñu xam ne ndey mooy yaay. waaw nañu jël baati olof yi tamit di ko utiliser ba xam ni ko olof yii nii olof la. comprendre nga mm. tey jii ñun dañuy wax dañuy wax olof te boo duggee ci am na baat yoo xamante ne ne xaajoo bay wax olof suñ la ko waxee suñ la ko waxee da nga naan déedéet. mag ñu njëkk ñi sa ndey lañ daan. sa ndey sa ndey sa ndey la waaw ah? tey yow ñu ne la jëlal pot bi jox sa ndey. nga mer wala jëlal pot bi nga jox sa nga mer nga ne lu tax mu wax ma sama ndey te sa ndey mooy sa ndey. sa yaay sa yaay. waaw mais loolu dëgg la mais yow. Mhm. je pense que yow dégluwoo xóot xóotu musique bi de ci biir. déggoo ma ne ma ne la du ma ci sori léegi daal bu euh, dee am na mboot li ciy daw après nag ñu ko tegal après nag ñu ko tegal ñu jéem a xool mboot yi kon donc fan la <laughs> génn macha allah gis nañ Mia Guissé euh, tag na mhm. foofu mhm. Euh, tey nag ñu war a delluwaat ci ci décès mm-hmm. Aziz mm-hmm. Dabala Aziz Dabala mm-hmm. parce que ñu ngi gis waa kër Aziz dañoo demoon euh, seeti waa kër euh, Waly pour euh, ja jaale ci leen dem waxtaan ak ñoom pour xam nga rek mbokk yi moom xas na ma doon benn macha allah dem jaale ji leen mais est-ce que tamit nekkul lu loo xamante ne nii dañ ko yéex a def pour ñu dem seeti leen. bon euh, Néné. Mhm. donc euh, dañuy saluer loolu macha allah. Mhm. Euh, jaalaat leen comme ni ñu koy waxee à chaque fois ci mhm. suñu émission rek muy ñoom ñaar ñëpp. mais tam bon mm, def nañu lu rafet. avant nag bu dee leneen waroon na cee am. ci xale yi la waroon njëkkee. ñoom xale yi ñoo waroon a nemmee sonte fexe ba ñeen seen ñaari famille yi ñu xamante. ay nit su fekkente ne dañuy ànd ànd bu sincère. dama bëgg nit ba tax may ñëw ci yow. fexeel mu xam sa famille. muy ci famille Waly muy ci famille Aziz. def nañ lu rafet benn comme dem nañ foofu jaale ji mais tamit lépp lu ci doon am. waroon nañ ko mën a yëgandoo waroon nañ ko mën a yëgandoo mhm. tey xam xale yi fan la ñuy dugg ak fan la ñuy génn. aussi njaboot da nga ko war di topp aussi. njaboot dañ koy topp. Mhm. njaboot dañ koy sàmm na ngay sàmmee say jur. Mhm. nga xam xale bi fu muy dugg fi muy génn. tey ji bu doon loolu amoon na avant mën gëm gëm naa ni que tey famille bi day mel ni. du fi egsi parce que dañ dañuy am benn. Mhm. parce que euh, souvent lu ci bëri. parents yi ñoom ñooy seetaan seen seen doomi souvent dañuy gis ku jóge dëkk ba. Mhm. ñëw fii nii dakaar yow xamoo sax sa doom fu muy fanaan. yow xamoo sa doom ci lan lay dund xamoo sa doom ci yan conséquences la nekk. dëgg la doo comprendre en tout cas yow daal mu ngi lay yóndee ay 10 ay 5 000 rek. yow yaa ngi ci say jàmm. Mm. Mm. mais duñu xam ci looy dugg duñu xam ci looy génn genre boobu noonu tamit euh, parents yi waruñu ci gëstu bu baax seen njaboot ci lu ñu nekk. waruñu ci gëstu parce que doo doo jur sa doom ba pare bàyyi ko si àll bi muy tërëriir doo di jug doo xool si lan la nekk. Mm-hmm. tu te soucies pas de lui. bi parce que parent moo war a féetee doom bu ko fenn kenn féetewul parce que ama amaa la si genre ses parents étaient là duñ ko reyee ci façon yuñ ko reyee nii tu vois mm-hmm. Mm-hmm. n'avait pas le soutien mais comme on dit Dieu fait bien des choses et genre di ñaanal waa këram et tout tu mm-hmm. et mieux vaut tard que jamais vu que famille wu bi déplacé wu nañ ba dem dem dem seeti def nañ ko était genre la peine c'était partagé parce mm. nekk perte benn moom bu mm-hmm. cher donc waaw donc affaire bi rafet na torop di leen ñaanal yàlla xaaree leen àjjana macha allah euh, nee na xam naa ne tamit comme foofu noonu mu daaneele falaa yëkkati waatee mm-hmm. tamit ñuy ñaanal tam ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo wàññeeku ci accident bi nga xam ne am na fi ce matin mm-hmm. bus bi jóge woon fi nga xam ne moom moo di Icotaf vraiment foofu la jóge woon donc euh, mu am décès yu bëri te aussi tamit bus bi dafa tàkk donc loolu nekk na lu metti te loolu léegi léegi ñu ñaanal ci suba la ci suba donc voilà donc loolu ñu leen ñaanal mhm. ñoom tamit euh, suñu borom xaare leen àjjana mais tam aussi ñi nga xam ne ñoo ci blessé tam suñu borom yëkkati leen nu mu gën a gaawee ñu delluwaat ci seeni ci seeni seeni njaboot mhm. mais tam jot na nag ñu xool li xamante ni moom mooy indi dese yu bëri jot nañu raxasaat suñu Sénégal jot nañu fóotaat suñu Sénégal ndaxte li fiy xew fu mu toll nii nag metti na te ñaaw na voilà na xol yi ànd voilà donc loolu tamit euh, ñu jaarale woon ko ci rek ñaanal mais est-ce que bëri yi mhm. tamit est-ce que mhm. tam duñ ci laal tuuti rek après ñu tàggatoo xam naa mm. jot euh, euh, heure bi jot na ba pare mhm. parce que da ngay gis xale yu ndaw léegi ñu leen di jox permis mm. te pour ah. te pourtant xamuñu code ñu dara. <laughs> ci loolu lay. soo gi bëri yëpp pour man loolu moo ko waral. mais dañoo waxoon euh, tëdd muy dox xaw ma foog muy dox waaw dafa jeex mais dafa mel ni affaire yaa ngi am ba tey mais xam nga. Mhm. xale yi dañuy bëgg di brodi. mais est-ce toog muy dox amoon na fi. man ah, ah tamit nee oh, oh, oh. doo xool. si maa ngi xool toog muy dox amoon na fi kay. ah mais ah. du ma toog muy dox. loolu waaw xam nga yow su fekkente ni yow toogoo muy dox doo xam ndax am na wala amu fi. parce que ngay jub mi gis mhm. ku ñu jiital ba ci kanam. xam nga loolu toog muy waaw dëgg la parce que ah. dañuy gis kenn nga ne ko toog muy dox la. Euh, nga am ku la jàppale rek fekk boo xamante ne mu ngi ci 5 mètres waaw nga ñëw waxal ñu ñu dugal la ba si bralon waaw <laughs> loolu nag moo am si bi tànk jeexul ñun duñu mën a kii quoi. permis ni koy joxee dañ kaa war a xoolaat. yéen ñi a def de seen consort man maa ngi nii ay mbirum oto laa ragal si boppam. <laughs> ma ne permis daal ni ñu koy joxee war nañ ko xoolaat. war nañu xool tamit tali bi. Mm-hmm. suñu Sénégal dañ ko war a sang. Mm-hmm. nañu fexe sangu ay waaye nañu dimbali la wala suñu sangal ñu suñu Sénégal bi ñu suñu Sénégal la ñu am ñu Sénégal la ñuy ndamoo fii la ñuy ndamoo tey ji fu ñu mënti dem ci àdduna fu ñu mënti taxaw bu ñu waxee dañ naan sénégalais lañu te doon dañ ciy fier ndax ku ne xamee na sénégalais baax ku ne xamee na sénégalais yiw ku ne xamee na ko tamit wax lu baax jëf lu baax donc bu ñu yàq suñuy réputation nañu fexe sang suñu Sénégal muy ci kàddu yi muy ci jëfin yi muy ci lépp lu mu mën ci doon rek en tout cas en tout cas ah, jàppale ñu bu baax a baax parce que réew mi ins bi nii métti na nit ñi xale yi ñu ngi sànku ñii ñu ngi dugg ci gaal yi mhm. xale yi ñu ngi dugg ci lu ñu xam. surtout foofu tamit nañ torop torop torop côté boobu tamit ah, am nañ ci tamit euh, ñu bëri ñoo xamante ni tamit yaakaar naa démb ci guddi la wala ci suba gi. ñu bëri ñoo xamante ni disparu nañ. waaw waaw waaw ba tey jii kenn gis na presque plus de deux cent deux cent kii mhm. personnes. dix jours ba tey xaw ma non non non la woon la woon waaw voilà donc ba ba ba suba le douze lay am mois. xoolal xoolal loolu. am na ci ñu ci bëri ñoo xamante ni gisuñu leen. Ah, ñu ngi ci jot a gis tamit au fait bon Euh, amul euh, ay décès ak yooyu xam nga bu fekkee ne ñoom nga gis tam bon dafa metti daal dafa metti dafa metti dafa metti trop ñu liggéey waaw nañu ubbi surtout loolu on fait appel au gouvernement au gouvernement ñu ñëw féetee communauté yi ñëw dugg ci communauté yi xam ni nit yi di dund xale yi dund waaw tamit nekkul tamit xale yi ñu ci bëri mhm. koo ne tey liggéeyal fii ñu ne la déedéet man dem rek laa gis waaw dem rek laa gis na nga dem ca ba mu jotee dem laa gis na nga dem ca ba mu waree demal nga déposer ji say say say say say papier demal nga def say demande ba yàlla may la visa boo waree dem da nga dem gis nga ku fa war a naani ci sa kaasu kafe gii kenn mënulaa tey Sénégal xamal ne da nga xam te yàlla ah. bu nee di nga am kulli àll da ngay ah, am si doomu aadama na xalaat yàlla bu dama lay taal da lay taal xalaat ni sa wërsëg waaw les jeunes luy sa wërsëg force di nga ko jëli ji ñuy gis kaaw bi rek ñu foog ne dafa yomb dafa yomb yombul parce que ñu nekk foofu ñu ngi suuf am na ñoo xamante ne fa te pourtant suñu Sénégal boo bëggee liggéey rek am di liggéey nag te xoolal nekk si kaaw bi yëpp dañuy dem premier jour deuxième damaa bëgg ñibbi ndax li nekk Sénégal amul foofu kon ñafe leen ngeen toog fii ñu fay ñu am ku fa war a naani sa kaasu café gii de danga ko fa yëngali macha allah fii Sénégal macha allah fii euh, euh, kër goo dugg ñu ubbi la buntu yi. foo dem fekk boolu añ bi tege. ñu ne la kaay añ waaye fee bopp sa bopp la loo jëndalul sa bopp. yow doo lekk doo naan sa sa mag bi nga bokkal ndey ak baay sax amaa la doo leen. waaw doo leen nekk. voilà kon toog leen fii ñu reyante ko am li ñuy am si dëkk bi investir si dëkk bi. ah yàlla baax na sama yàlla baax na yàlla baax na suñu borom taxawu taxawu jaboot ji macha allah ci aussi mhm. tamit. Mhm. Euh, ñu xaw a gën a gën a kii daal prudent. di surveiller seen njaboot yi. surtout di bàyyi xel seen doom ci lu ñuy dugg ak ci lu ñuy génn. Mhm. aussi euh, di leen jox rek. kàddu gi mhm. ngeen tàggatoo. vite fait ndax ñaar bi jot na. Ah, bon comme ni ma leen ko waxee mhm. rek. Mhm. lépp on a tout dit sur le plateau. Euh, di leen tàggatoo di leen jox rendez-vous suba incha allah. Euh, ci émission bu gën neex bu gën a cukku. waaw ñu leen di xaar te xoolal like leen partager leen bës leen cloche bi. te xam naa ne sax gaa yaa ngi partagé. xam naa ne au zénith bi moom ñëpp ko yàq ñëpp ko ko yàq ñëpp ko yàq ñëpp ko yàq ñëpp ko yàq ñëpp macha allah waa neen ne euh, ma di la jaajëfal bu baax a baax di nuyu tamit aussi Sandra xam naa ni waxtaan bi am na solo te aussi dina leen neex wax rek suñu mbokku internet yi ñu di leen jaajëfal bu baax a baax a baax macha allah lii moo nekkoon seen émission au zénith te xam naa ni que yéen a ngi koy xaar saa su ne ñu di leen wax rek ba tey ngeen continuer di partager mais tam aussi di abonné sur Evidence TV ngeen bës cloche bi nga xamante ne bépp émission bu fi am rek bu yegsee di ngeen ko gis waaye tam noonu laay jaajëfalee tamit sama raq ji sama xarit bi nga xamante ne macha allah moom mooy Sakho iPhone Sakho borom téléphone yu baax yi ma ngi fële si en face Masalikul Jinaan mhm. ma di ko nuyu di ko ziar bu baax a baax a baax moom ak bépp naataango boo xam ne moom la nekkal mhm. bégg naa leen merci beaucoup. merci beaucoup. Mhm. mbaa iPhone yi ñëw rek. Ah, waaw non day ah, day ñëw saaxo rek. suñu niveau yi ah. yokku tamit. kooku borom baax la macha allah yii ko kenn du moom. sama càmmiñu bopp jooju. te gis naa la ñaar nga yore. daa <laughs> eh, ma bu ma siiwalee wuy ma xalaal gi pour ma cat man yi ma yor nag ay la si suuf booy yéeg yi ma yor de ay kii la yow ay nu mu tudd te xand xando nag xan nu mu tudd yu baaxul yooyu yooyu dalax boo nee allo balaa nga ne <laughs> balaa nga ne sabaa foofu bul yegg <laughs> boo nee allo balaa nga ne sabaa mu dagg <laughs> merci beaucoup di leen euh, jaajëfal xam naa ne euh, tout le temps rek yéen a ngi toog di xaar suñu émission bii di Au Zénith di leen jëfal bu baax xam naa ne benn ci ci ci ci beneen émission waa rek ñu indilaatal leen leneen lu bees yu bees tàkk mhm. merci beaucoup